je suis le président de la plateforme Kayar Vision Future. Euh, dañu nekk euh, dañu constitué wu en plateforme tuddee ko Kayar Vision Future ñu war a xalaat nag ana nan la ñuy war a taxawee pour ëllëg exploitation gazière bi nga xamante ne war na am fii ci waaxi kayaar ñu xam ne kayaar dëkku napp la te suba lu bëri dina soppeeku ñu ne nag nañu initier ñu nekkoon ci boobu léegi tey beneen partenaire rejoindre ñu muy CRADES. ñu ànd ak waa OMEF ñu war a taxawal nag pour xool tey ñu invité woon ñi nga xamante ni ñoo nekk suñu ay partenaires nigérian ñoo ñu nga xamante li ñuy war a dund ñoom dund nañ ko ba pare pour ñu euh, échanger ak ñoom pour que ñu mën a gën a mën a préparer wu pour que la nga xamante ni dund nañ ko ci safaan ñu bañ fa egg wala la nga xamante ni dund nañ ko tamit ci lu ci lu ci lu ci lu baax ñu moo xool naka lañ koy gën a mën a profité pour ñun waaw impact yi moom comme niñ ko waxee euh, impact négatif yi maanaam euh, yàqu-yàqu yi mooy ëpp te loolu li koy waral mooy euh, standard yi nga xamante ni compagnie pétrolières yi ak gazières yi di exploiter Europe duñ ko maanaam matériel yi ñu exploiter ak normes yi ñuy respecté foofu duñ koy respecté fii parce que dañuy xaw a yàpp suñu suñu gouvernement yi ndax dañuy xaw a doyee tuuti tuuti waaye nag loolu moo tax ñu nit comme teel nañ ko yëg dinañu euh, taxaw ñun ak waa CRADES suñu partenaires yi pour gën a approfondir la réflexion pour que euh, loolu nga xamante ni ay ay taxawaay yu doyodel la ñu fexe ba mu mu mu gën a néew que ni muy amee feneen waaw. Euh, je suis docteur Fatima Diallo, je la présidente du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et on était venu aujourd'hui à Kayar pour organiser un dialogue Euh, communautaire avec la communauté de Kayar avec nos partenaires nigérians HOMEF. waaw li li waral euh, ndaje gi tey moo doon weccoo xalaat ci wàllum exploitation future de gaz buy am fii nii pour gën a yee euh, yee communauté yi ci Euh, wàllum problème yi war a mën des fois nga xam ni dañ ko gis ci yeneen wax yi loolu moo tax euh, débat yi bëri na je pense birum pétrole léegi moom sénégalais yëpp mën nañu wax ni am na ci benn niveau de connaissance mais ñun lu doon indi tey mooy indi ñeneen ñi nga xam ne ci yeneen réewu Afrique dund nañu les mêmes les mêmes expériences d'exploitation pour ñu ñëw partager ko ak communauté bi pour ñu gën leen reeral aussi ñoom yan yan euh, yan problème la ñu jànkoonteel bu ñu jànkoonteelee ak problème yooyu aussi yan taxaw waaye la jël pour euh, diminuer ak am solution ci problème yu ñu doon am. waa jël nañ fi ay recommandation yu taxaw parce que ñoom yàgg nañu réfléchir ci mbir mi depuis quelque temps déjà d'ailleurs constitué wu ñun déjà en plateforme comme ni ko Abdoulaye Gueye waxee donc ñoo ngi jéem a di booloo di waxtaan tout le temps donc c'est pourquoi moo tax aussi ñu am quelques recommandations déjà mais ce n'est qu'un début euh, bëgg nañ ñu wax leen li nga xam ni mooy dëggu. si mbirum exploitation bi am na nañu beaucoup d'informations yu nu jot des fois ñu ni baax na des fois ñu ni baaxul ñoom lu ñu gën a bëgg daal mooy nan leen wax dëgg ji si ndaxte boo xamee dëgg ji si ngay gën a préparer wu bu baax si ngay gën a mën a xam aussi naka ngay taxawee yeneen recommandation yu fi génn aussi mooy nan leen jàppale ba nu comme ñoom ay pêcheurs lañu ay nappkat lañu nan la ñuy def ba transitionner si yeneen métier parce que wóor na leen ni bu commencé fu nu mënti jaar même bu dee tuuti dina am impact si beneen liggéey gu ñuy def donc naka la ñuy def vraiment ba ba ba mën a transitionner si yeneen métiers yi nga xam ne bu nu perdee tey lu ñu doon am si napp gi daan ko mën a jëlee feneen nan la ñuy def aussi ba collectivité locale yi état bi ak yeneen acteurs yi intervenir fii yëpp bu ñuy jël ay décisions yi nga xam ni day am impact ci askan gi nu ñuy def ba impliqué ci askan bi de manière beaucoup plus approfondie loolu mooy recommandation yi nga xam ne bëri na recommandation waaye yenn yi nga xam ne mën nañ ko tënk Euh, ce matin, nous avons reçu euh, le CRADES, qui est un centre de recherche, euh, accompagné de OM, euh, OMFISH, euh, de OMF, pour intégrer un groupe FISHNET, un, un réseau africain, pour défendre l'intérêt des pêcheurs en situation de main d'exploitation gazière. la plateforme est, est une structure communale fêtière qui réfléchit sur les moyens à mettre en œuvre pour que la, euh, pour que l'exploitation gazière soit euh, un bénéfice et non pas euh, quelque chose de négatif pour les populations de Kayar. Voilà, c'est un pas de plus pour nous parce que depuis le début, on en dans des spéculations un peu. Aujourd'hui, on, peut, un peu édifié, un peu plus édifié euh, sur ce que sera exactement l'exploitation. Euh, Nous avons reçu une délégation nigériane qui ont déjà vécu, euh, qui sont en train de vivre encore les externalités positives comme négatives de l'exploitation et que euh, cette expérience va nous permettre de nous positionner, de mieux nous préparer pour euh, minimiser les impacts négatifs, mais aussi pour voir quels sont les, euh, euh, les points d'opportunité sur lesquels on peut Euh, accentuer euh, pour, pour y gagner le maximum possible. Oui, euh, par rapport aux impacts, les impacts sont beaucoup plus négatifs. Hein, ils sont beaucoup plus négatifs. Et là, ils viennent confirmer des appréhensions qu'on avait déjà. les impacts sont négatifs. Euh, voilà quoi. Et comme nous sommes animés de volonté et d'espoir, nous allons voir approfondir la réflexion avec surtout le centre de recherche pour voir comment transformer tout cela et minimiser les impacts négatifs. Des inquiétudes, des inquiétudes, des inquiétudes trois fois et des espoirs aussi. Voilà, donc euh, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, plus édifiés hein, euh, et nous avons vraiment euh, posé et trouvé des réponses à toutes les questions qu'on se posait d'emblée et pour lesquelles on n'avait pas des réponses plausibles. Voilà, nous sommes donc sortis de cet atelier plus informés sur les impacts, plus conscients également, mais aussi plus déterminés à changer et à faire changer les choses. Euh, les tenants et les aboutissants, en fait, euh, le CRADEX est un centre de recherche, mais aussi d'action, donc de plaidoyer, mais de plaidoyer informé par une certaine euh, connaissances. Et, et, donc, nous avons voulu partager les expériences nigérianes parce que nous considérons que le vécu de l'autre côté constitue déjà des connaissances que eux, ils devraient, dont ils pouv devraient pouvoir bénéficier. Et euh, les tenants et les aboutissants sont assez simples. C'était d'informer davantage la communauté sur les impacts positifs, mais également sur les impacts négatifs, parce qu'on sait tous, sans se voiler la face, que l'exploitation du gaz et du pétrole a aussi des impacts négatifs. Et généralement, les communautés qui sont les maillons faibles en fait de, de ce système, de, de la chaîne d'exploitation souvent, euh, sont les plus affectées. Et donc notre rôle est de venir les informer et de les, de les sensibiliser sur certaines questions à travers euh, toute une méthodologie qui a été développée par HOMEF, qui est euh, une organisation de droit nigérien qui se bat pour les droits des communautés. et en partenariat aussi avec la Fondation Lusa Luxembourg. Donc les tenants et les aboutissants, c'était le, le, but c'était vraiment d'informer les communautés en vue de les préparer à participer aux différentes décisions qui vont concerner euh, l'exploitation future de, de, de, du, du, du, gaz dans, dans, dans la localité. Et quelles sont les propositions il y a eu beaucoup de propositions parce que la communauté, je pense, a déjà commencé à réfléchir depuis quelque temps déjà. Donc c'est normal que quand nous venons et que nous leur demandons des, des, demandons des, des recommandations, ils viennent avec des recommandations très concrètes. Euh, ils veulent vraiment avoir une information juste et fiable sur les effets négatif mais aussi sûrement positif aussi. Ils veulent aussi être mieux formés, ils veulent euh, bénéficier des, des, différents bénéfices qui vont ressortir de l'exploitation, ils veulent vraiment que, que toute la gestion et, et, la gouvernance du secteur soit plus inclusif. Ils veulent que le droit, surtout économique, sociaux et culturel, soit respecté. Donc je pense que tout ça a été des recommandations fortes, mais c'est juste un début. C'est un début et nous allons commencer la réflexion, continuer dans le cadre d'un partenariat que nous avons signé pour réfléchir davantage sur les différentes stratégies qu'on devrait mettre en avant pour pouvoir davantage appuyer les communautés.